كل شيء خلقه ثم asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi yéen ci seen TV ci seen émission bonne journée ñu ngi yéen ci ñaanu bés bi di leen fàttali ñu ngi ci tur borom bi subhaanahu wa taala ba tey dégg ngeen démb ñaar yi leen booleel mu am solo lool mu di al awalu al axiru yàlla mi fi njëkk ñëpp te di fi mujj ñëpp tey nag ma jox leen turam googu ñu tuddee al qudduusu al qudduusu alquduusu loolu mooy lan yàlla mu sell mi yàlla mu sell mi kon woo ko ci ci turam googu ne naa la am nga ci cër di ko wax yaa qudduusu yaa qudduusu yaa qudduusu yaa qudduusu ay yow mu sell mi yàlla dafa sell ci turam yi sell ci melokaanam yi sell ci jëmmam nga xam ne niruwul ak dara bokkul ak dara dara moom rek moo fa nekk condong amul lu ko tax amul lu ko tilimal déedéet lépp ma set kon dee ko ci woo mu sellalal la sa bakkan sellalal la sa ruu sellalal la sa biir ak sa biti ndax alquddus baat boobu nit dakaa soxla maanaam ñu sellal la bokk maanaam nga am sellate doo dégg ñaan diw dafa sell te ku sell mooy set nga set nga ci jikko sa xol laab na ñaan ko ci moom moom nga xam ne lu sell moo la sellal lu set moo la setal di ko ci woo ngir lan nga bokk ci gaay yu baax yooyu ndax kat daana wax wax nañ ci quraan ne alquran boo demee dana wax illa man atallaha bi qalbin salim yàlla ki muy nangu suba ku dikk rek am xol bu set bu bokkaalewul ak moom sell kon xol bu dul bokkaale kat sell na kon booy ñaan yàlla turam googu mu sellal sa xol ci bokkaale sellal ko ci bàkkaar sellal sa jëmm ji ci lu bon rafetal sa xol rafetal sa jikko ci yaa qudduusu nga koy wooye mu téye la jàppale la mbokk sa cirangoog ci tur bi woo ko ci nga xam ne yaa ko moom bul tayal ndax newoon naa la del insister rek di ko ci wax yaa boo ko déggee mooy ee eh, yaa ngi wootee te yàlla boo ne wax yaa rabbi yaa rabbi ñetti yoon sax mun la waxal sa soxla masama boo koy wax ci ay turam kon mbokk ñu leen jaajëfal di leen gërëm di leen sant loolu moo nekkoon sa ñaan bés bi wasalaamu aleykum wa rahmatullah ya man ala al arsh يا من خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم